bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala fa jacalnaaha nakaalan lima bayna yadayha wa ma xalfaha wa mawcizatan lilmuttaqiin suñ boroom ne dëkk boobu def naa ko mu nekk mbugal nekk ak waar ci koo xam ne fekke na ba loolay xew lima bayna yadayha ak itam ñoo xam ne gannaaw ba la ñëw waaye ñu yëg la xew wa mawisa mu nekk nag ak waar ak fàttali ak jàngale lil muttaqiin ñi ragal yàlla ñoom dañ ciy jànge dañ ciy waaroo xam kàttanu suñu boroom tabaraka wa ci xam ne ku def bakkaar yu mel ne li ñu def danga nga yeyoo mbugal moomu nga xam ne moo dal ci seen kaw su ko defee ñoom ñu sax ca la ñu nekk ci lu baax wa is qaala muusa li qawmi na fàttali ba nga xamee ne muusa wax na nitam ña te mooy banu israil inna allaha yamurukum an tasbahu baqara yàlla digal na leen ngeen rendi aw nag la ko waraloon mooy dafa amoon waaju am alal waaye nag amut doom jonni doomi baayam yoo xam ne moo fa nekk moo ko war a donn daldi koy rey ngir bëgg donn alal ja rey ko ba noppi nag yóbbu ko ci buntu kër ñeneen teg ko fa xëy nag di woote di wane ne mbokkam lañu rey ñu koy jiiñante ba nar ca xeex am ñu ne waaw gannaaw ab yonent bi ngi fi Moussa alayhi salaam nañ dem ci moom laaj ko ba xam bi ñëwee ci Moussa alayhi salaam laaj ko ko suñu boroom ne ko nee leen nañu jël aw nag rey ko rendi ko am lu ñu dagg ca nag wa dóor ko ki faatu su ko defee dana dekki wax ki ko rey moo kon Moussa ni leen ba ñëwee laaj ko dañoo am ko faatu te ko ko rey moom mu ne leen rendi leen aw nag maanaam daal mel ne wax yi bokkut ñu lay wax ko faatu yow nga ne wax aw nag wu ñuy rendi moo tax ñu ne ko xaalu ñu ne ko atattaxisunaa huzuwan waa xanaa danga nga nuy ñaawal wala boog da nga nuy doyadal wala da nga nuy yëjji qaala auzu billahi an akuna min mu ne maa ngi muslu ci yàlla maa ngi làqu ci sama borom tabaraka wa taala may bokk ci ñi nga xam ne dañoo réer dañoo gàtt xel bay wax wax joo xam ne waxi doyadi la wala wax joo xam ne waxi bëgg a doyadal ñeneen la kon loolu reetaane ak doyadal ak saboté ku koy def rek li muy tekki mooy ku réer nga ku ñàkk a jëfandikoo sam xel nga ñu xam ne kon li muy wax moom lu fullawu la ndax ab yonent du wax ay caaxaan qaalu ñu ne ko ud'u lanaa rabbak yubayyin lanaa maa hiya ñaanal nu sa boroom mu leeralal nu wan façon nag la te nag rek lañ leen waxoon moo tax di diisal mbir muñ la diisalut loolu lu mat di moyu la ñu bari dañu bëgg di xóotal di laaj laaj yu xóot diine fuñ la ca yamroo rek yabal foofu nag rek la leen wax waxu leen nag wu mel nen kon mënoon nañu nag wu njëkk a jot rek jël ko rendi ko waaye ñu ne ko laajal nu yàlla nag woowu nu muy yu bayin lana maa hiya qaal mu sànni leen innahu yaqulu innahu moom suñu boroom yaqulu wax na ne innaha baqaratun laa faaridun wala bikrun awaanu bayna zalik faf'alu ma tu'maruun leneen suñu borom nee na nag lay doon woo xam ne du noon nag wu mage ba màggat faaridu du noon nag wu màggat wala bikrun du noon nag wu ndawe itam ba ëpp waaye awaanun nag wu ne ci diggante bi la du mag du ndaw bay na ci diggante mage ak ndawe ci lay nekk daal leen di bëgg a arrêté nag ci laaj yi ne leen faf alu ma tu'maruun def leen liñ leen digal bëgg ñu yem foofu waaye ñoom yemuñu fa ñoom dañoo am ak der bopp ndax rek bëgg a gàntu liñ leen di digal xaalu ñu daal koy waxaat ni ko oddo lana rabbak ñaanal nu sa boroom yu la lana mu leeral nu maa lawnuha lan mooy aw meloom lan mooy couleur nag bi nu muy mel xam nga loolu lépp kon euh, diisal la ak bëgg a dugal sa bopp ci lu jafe qaala Musaa ne leen innahu yaquul suñu boroom nee na innaha baqaratun safra nag wu gel lay doon gel mooy li ñuy wax mboq walla jeune lu jaune couleur bu jaune lay doon loolu bariwul ñuy gis nag wu mel noonu faaqewun lawnuha te itam couleur ba day foncé lool maanaam mboq bu ñor lay doon te surru nazirin day bégloo sax ji koy xool koo xool sax dangay ngay bég ndax rafetaay bi ndax dafa euh, mboq dafa zone zone boo xam ne bu foncé la mu ni leen nag wi noonu lay mel ñu del si waat ne ko xaaloo ñu ne ko ud'u lanaa rabbaka yubayyin lanaa maa hiya ñaanal nu sa borom mu leeral nu ban façon nag la ndax kat nag yi mel noonu bari na ñoom ca seeni nag lu mel noonu bari woon na fi couleur bu mel noonu kon loolu nee nañ du taxagun ñu xam wat nag la moo tax ñu ne ko innal baqara alay na nag yi dañoo niroo dañoo nuroo ci nun nag woowu nga wax ak na woo nga ne day nekk ndaw du nekk ndaw lool waaye du nekk mag lool te itam couleur bi day mboq day jaune yooyu liñ ci gis bari nañ tasaabaha alayna waaye nag ñu xam ne nag ñi ngi bëgg a jóg day moo tax ñu daal koy dig ko wa inna insha la muhtadoon waaye noonu bu soobee yàlla daal moom danañ danañ gindiku nag danañ xam nag bi ñu war a rey wan la qaala Musa ne innahu yaqulu innaha baqara nga toujours rek day siwaat bàqara ji bu ñu ci bàqara rek an tas baxoo bàqara rek lañ leen waxoon bon saa bu ñëwaatee rek danaa leen innaha baqara aw nag la daal la zaluul nekkul nag wu ñu wulli ba di ko jëfandikoo ma nag yi da ci am yu ñu wulli di ko baye wala ñu koy takk saret nag mu nekk aw loo wala ñu koy sëf ay bagaas loolu am na ci nag yi kooku moom la ñu tuddee zalul mu ne nekkul salo tusiirul arda woo xam ne day jeqi suuf si maanaam dañ koy baye di ko labourer ba demee ci barab yi ñu koy defee ba léegi ñu ngi koy def ci réew mi yoo xam ne ay nag la ñuy baye mu nekkul nag woo xam ne daal dañ koy liggéey wala tasqil sa nekkul ndox moo nag woo xam ne itam dañ koy roosee mbay mi maanaam dañ cay takk loo xam ne moom lañuy roose mbay mi musallamatun mu ne leen nag wu mucc la laa siyata fiiha benn màndarga buñ koy màndargaale naan daa am lu weex ca bopp baag wala ca gannaaw gaag dara nekku ci mën a wenn melu la la siyata fiiha amul benn sikkitam xaalu ñu toog ne nag al aana jita xaq ñu ko nag léegi nag andi nga dëgg nag wax nga dëgg nag te moom ba mu tàmbalee rek la waxoon dëgg fa zabahuha nee na nag ñu daal di jël nag bu mel noonu daal di koy rendi mu ne wa ma kaadu yafaluun xaw tuur rek duñ ko def ndax nag jafe woon na lool pour ñu gis nag nag woo xam ne lii ñu wax lépp daje na ci jafe woon na moo mu ne xaw tuur rek duñ ko mën a def te ñoo ko yóbbee seen bopp ci jafeel guñ ko jafeel nga jëkk nañ koo laaj aas bi fi muy toll laajaat ko couleur bi laajaat ko itam ndax wu ñuy liggéeyee lay doon wala wu ñu liggéeyewul la kon deseetuñu lu ñu war a laaj parce que kon daa jiital loolu nga xam ne mooy doon atte bi ca xew-xew ba doo ci la doog a tudd na xew-xew bi ne wa is ataltum nafsan na ngeen fàttaliku ba ngeen rayee bakkan mara yu mbooloo mi gannaaw ñoo koy jiñante kenn ko def ci seen biir rek day mel ne ñëpp ko def faddaaratum fiiha ngeen di ca jeñante mooy di ko jiiñante kii na ñiila kii na ñii la koy jiiñante wallahu muxrijum maa kuntum te yàlla suñu borom dana génn li ngeen di nëbbu li ngeen di nëbbu ñi ko ki ko rey wala ñi xam ki ko rey ba noppi bëgg koo jiiñ ñeneen suñu boroom dana feejal lool fa qulna fa qulna adribuuhu bi baadiha suñ boroom ne leen dóor leen ki ñu rey ci lenn ci lu bokk ci nag wi ab xaaj lu bokk ci nag wi rek luñ dagg lu bokk ci nag wi rek nañ ci dagg rek lu ci bokk rek bàcc ko ko nag boobu nga xam ne ren dañ ko ba noppi suñ ko defee rek suñu boroom dana ko dekkal te bu dekkee dana leen xibaar kan moo ko rey ba ñu ko defee dagg ca dóor ko ki nga xam ne moom la lañu rey suñu boroom daal di koy dekkal mu daal di wax ki ko rey da ko wax rek daal di faatuwaat ci ko rey mooy mbokkam moo mu doon ko jiiñ nit ñi ndax moo ko fa gën a jege ci mbokk te fekk ne moom moo ko def mu ne kazalika yuxyi llahu almawta leen ci suñ borom di xamalaale nag ne nii mu dekkale kii noonu lay dekkale ñi faatu ñëpp wa yurikum ayatihi laallakum taaqiluun suñu boroom mi ngi leen di wan màndargaam yi mujisaatam yi nga xam ne day tegtale matuk kàttanam ngir ngeen mën a jëfandikoo seeni xel mën a xalaat ba tax ngeen bàyyi lépp loo xam ne ak mooy yàlla la kazalika yuxyi llahu almawta wa yurikum la laallakum taqilun summa qasat qulubukum min baadi zalik mu ne bi loolu lépp amee téewul seen xol yi wow dëgër gannaaw xew-xew boobu jàll xel yépp waroon naa nooy gëm yàlla ragal yàlla waaye ba jàllee dafa mel ne feeñul ci ñoom xool yi dafa dal di dëgër këng wow nanguwu ñoo gëm mu ne fa hiya xijaara xol yooyu dafa dem ba mel ne doj mel na xeer dëgëre na xeer xool bu wow koŋ boo xam ne dara du jeexital ci moom aw ashaddu qaswa wala sax moo gën a tar ak dëgëraay ak wow xeer yooyu ndax kat xeer wa inna min alxijaara am na ci xeer yi doj yi lama yatafajjaru minhu l yoo xam ne ndox dana ci di balle aw xeer léeg mu ne tàcc rekk am ndox di ca génn wa inna minha lama yasaqaqu fa yaxruju minhu lma am na ci yoo xam ne itam dañuy xar xar moom itam ndox di ci génn yee ay dex moo cay balle lama yatafajjaru minhu l anhaar ay dex mooy ball ci yenn xeer yi yenn xeer yi itam léeg-léeg mu xar ndox di ci génn am ngeen ab teen bu bënnee ci aw xeer sax ca la ndox muy gën a bare ca la ndox may gën a sell itam kon xeer wéyul rek ci ab dëgëraayam waaye léeg-léeg sax moom mu xar wala mu fett am maa ñëw seen xol yi moom dara mënu ko yëngal kon moo gën a tar wowaay xeer am na ci nit ñi ñoo xam ne seeni xol moom amuñu dara ci yërmande amuñu dara ci yërmande lu mbir metti metti metti duñ ko yëg sax wa inna minha am na ci xeer yi itam lama yahbitu min xasiyatillah yoo xam ne dañuy wàcc daanu jóge fañ nekkoon ngir ragal yàlla mooy tax ñuy fàq rek léeg-léeg aw xeer fàq fenn rek daanu ci suuf ngir màggal suñu boroom ak ragal ko wa ma llaahu bi gaafilin amma taamaluun mu ne suñu boroom nag nekkul ku yëgadi ci liggéen di def boo mboolem lu ngeen di def rek bu leen jàpp ne dara ump na ci suñu borom walla suñu boroom daf ko yëgul wala da caa amul soxla wala taxsabanna allaha gaafilan amma yaamalu zaalimuun bul jàpp ne yàlla dafa yëgadi dafa amul faale ci li tooñkat yi def xakay dafa am lu mu leen di xaar rek innama yuaxiruhum li yow yawmin tashqasu fihi al absar waaye lu waay def rek moom ma nga fa ahsaahu llaahu wa nasuuhu yàlla takk na ko doonte nag ña ko defoon mën nañoo dem ba fàtte ne def nañ ko mu ne afa tatma'una an yu'minu muy wax ak jullit ñi nag ni yéen jullit ñi xanaa da ngeen a a fàtte waa banoo israil yii muy yahud yi mu yahud yi boobu ñi ngi woon madina nekk fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu bare nga foon ci ay yahud jullit ñu bari nag doon xemmem ñoom ñu dugg ci diine ndax ñoom ñoo leen daan wax ci mbiri diine di leen wax sax ni ab yonente ngi ñëw boo xam ne bu ñëwee nun noo koy njëkk a gëm ndax noon dañ koy teel a xam ñun ñoo leen ci jiitu loolu sa bokkoon na ci li tax waa awsa xasraj ba ñu ñëwee makka te dégg na ab yonente feeñ na fi ñu gaaw bëgg a giseek moom daal di jaayanteeg moom dugg ci diina ji ngir loolu leen yahood yi daan wax naan leen bu yonent boobu ñëwee noo leen ci jiitu su ko defee gëm ko ànd ak moom xeex leen yéen mu ne afatatama woon ndax da ngeen di xemem an yu la lakum ñu gëm leen ñu gëm seen diina ji ndax da ngeen di xemem jàpp ne yahood yi danañ gëm seen diina ji di lislaam moom lañ waroon a gëm ndax moom rek moo fii diine léegi te waxat kaana fariqun minhum yasmauna kalaam allah summa yuxarrifuunahu mu ne te kat am na mbooloo ci ñoom ab kuréel ci ñoom te mooy seen fóori yi yasmauna kalaam allah dañ daan dégg waxi yàlla ci tawraat ñu ngi ko daan jàng ak di ko dégg waaye dañ koy soppi di ko wëlbati di jëmale wax ja fu mu jëmut min baadi ma aqaluuhu gannaaw bu ñu ko xelloo nag ba xam dëgg-dëggi wax ja la muy wax waaye la muy wax nag arrangé wu leen la muy wax ak lañ bëgg a dund bëgg nax nit ñi bokkut su ko defee nag moo tax ñu wax ja dañ koy jox beneen maanaa bu bokkul ak la ko taxoon a jóg te kat wahum yaalamuun li ñuy def xam nañ ko waaye bëgg a yilif nit ñi bëgg leen a nax ci turu diine comme ni muy amee rek faw ñu bëgg a nax nit ñi ci diine yilif leen ci di ci dund ci seen kaw duñ leen wax aay yi li wax dëgg dëgg dëgg ak li xaddis yi wax dëgg dëgg dëgg ndax buñ leen ko waxee rek dañ ci yem ak ñoom ñoom ñëpp ànd jëfe rek moo fi war a nekk kon waaye kenn koo xam ne moom nit ñi dañuy nekk sa surga ci sa gannaaw yow nga nekk mel ne buur loola diine ja joxu la cër boobu ñi ñëpp a ci tolloo bu leeree rek ñu xam ne kon ñii ngay waxal kat leen war mooy li la war. yahud yi loolu lañ doon def ñoo ko fi jëkkee jariñoo nit ñi ci turu diine wa ida laqu allazina amanu qaalu amanna ñoom yahud yooyu bu ñu dajeeg ñi nga xam ne dañoo gëm mën a jullit ñi xaaloo ñu ne aman ah, naa nun kay gëm nañ seen yonent bi gëm nañ seen diine ji waaye nag maanaam nun danoo nekk suñ diine rek waaye xam nañ ne yéen it li ngeen nekk diine la ndax yonent boobu nun xam nañ ko jàngoon nañ ko ci tawraat nga wax rek pour bëgg jubook jubóog ñooña ñañ koy waxanteel daa fekkoon ñu am ay relation yu yàgg lu jiitu l'islam di fa ñëw lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di fa ñëw ci wàllu commerce ak yu demee noonu moo tax ku ci dugg ci diine yi duñ la bëgg a ñàkk dañ lay naatalal sax li nga nekk waaye wa isa xala baaduhum baat su ñu wéetee nag ñoom ci seen biir nag ñoomu neen nag ñoom yahood yi ñuy yeddante nag xaaloo ñu ne waaw atu xaddisoonahum ndax da ngeen leen di waxtaanal ndax xam nga ñu ngeen leen doon wax naan lii seen diine ji jàng nan ko jàngoon nan ko suñ téere yi mi ngi ci moo tax ñu leen yedd ne lu tax ngeen di leen wax loolu atu xaddisoonahum bi ma fataxallaahu aleykum ndax dangeen leen di waxtaanal ci li leen yàlla leeraloon ci tawraat ci mbirum yonent bii di muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ngeen leen ko waxee ñoom dañuy amu lay ci suñ kaw nekkoon yenn lu tee ngeen gëm te itam dañuy amu lay ci kanamu suñu boroom ëllëg ci ne ñoom kat xamoon nañ diine ji dañ ko topput afala taaqiloon loolu ñoo koy waxat ci seen bi xanaa du ngeen xellu koo xam ne yaa ngi kontar li mu nekk ba noppi naan ko li nga nekk man jàng naa ko wér na xanaa amu leen xel koo kat kon day daal di amulay ci sa kaw la a ah, yow kat yaa wax ne xam nga ko kon lu la ko tee gëm waxta ñu ne li xaajookum bi ma fataxal xattu xaddisuna bi ma fataxallahu aleykum li yu xaajookum bihi inda rabbikum dañ leen ci dàgganteeg yéen fa seen borom dañ ci dàgganteeg yéen nekkat ñoom ñii xamoon nañ lii ndax ñoo nu waxoon ne jàng nañ kon nag afala taqiloon lu tee ngeen xel xellu suñ boroom ne waaw loolu ngeen jàpp ne bu ngeen ko nëbbee kenn du ko xam awala yaalamuuna moo tax dañoo xamul ne anna allaha yaalamu maa yusirruuna wa maa yulinuun seen giraawaali yooyu ñu def ak li ñu xam ba noppi di ko nëbbu xanaa xamuñu ne suñu borom tabaraka wa moom xam na li ñuy nëbbu ak li ñuy feeñal mu ne wa am na ci ñoom ummi ummiyuun ñoo xam ne ñoom mënuñoo jàng mënuñoo jàng mënuñoo bind jàngu ñuy tawraat mooy mbooloo moo gis rek am na ñu ne ca bopp ba nga xam ne ñooy njiit ya ñi ca des ne moom ay altoppe lañu rek dañ leen a yóbbaale rek comme ni mu amee ci jullit ñi fi ne ñoo xam ne dara mënuñu koo xam jànguñu mënuñoo bind dañoo topp rek ci ay nit lañ topp rek loolu amoon na ci yahut yi moo tax mu ne laa yaalamuuna alkitaaba illa amaniya lu dul ay mébét rek ak ay njortu rek la ñuy demee am daal lu ñu mébét la bëgg ci seen xol la ñuy jàpp ne loolaay am nit ñooy ñooy tëralal seen bopp ni ñu bëgg mbir ya demee ni ëllëg rek daanaka ñu daal koy tëralal seen bopp na demee na noona noona lay demee nii nu ko bëggee daal noonu lay demee diw dana def nangam nangam nangam dana am ñooñu it noonu lañ meloon wa inhum illa yazunnuun ñoom li ñuy wax lépp amuñ ci benn dalil waaye ay njott rek la ñuy demee noonu ñuy bàkkee seen fóori yahuud ya defe nañ mën nañ leen a sawe bu ëllëgee comme ni muy amee ci biir jullit ñi ñoo xam ne bàkk ay nit rek bu ñu laa waxtaan lu ci diine sax mooy waxtaan lu ci nit rek lañ bëgg nit daal ko xam ne loo leen ko gën a xel gën daal ci ne kooku kat kon liñ yaakaar ci moom mën na ko gannaaw mën na loolu lépp loolu lañ bëgg a dégg ñu dalale ko seen xel te loolu lépp nag ay jot dong la amuñ ca dara lu leer kon noonu la amee woon ci yahud yi mu ne fa waylun toskare mbugal lillazina yaktubuuna alkitaaba bi aydihim summa yaquluuna haza min indillah mu ne toskare alkande tëkku bu tar suñ borom mi ngi koy tëkku fóore yi mooy sëriñi sëriñi yahood yi ay fóore la ñuy tudd al ahbaar bu dee sëriñi nasaraan yi ñooy ar ruhbaan la ñuy tudd ñoom ba tax inna kasiir min al ahbaari war ruhbaan day akuluuna amwaala naasi bil baatil gis nga dañuy lekk alal nit ñi suñu borom tëkku ne leen yaktubuunal kitaaba bi ay diihim ñooy bind seeni téere ci seeni loxo wax joo xam ne ñoo ko bindal seen bopp ñoo ko taalif ba noppi nag ne lii yàllaa ko wax suba yàqooloon xaasa min indillah loolu yi noonu la amee ci ñoo xam ne yaay bind sab wax ca lu la soob ci sa bopp waaw ne am naa lii yàlla defal na ma lii yaa ko wax sa bopp yaktubuuna alkitaaba bi aydihim summa yaquluuna haasa min indillah ndax lan li bi yashtaru bihi samanan xalila ngir ñu jënde ko njëg gu néew su ko defee nit ñi gën leen a gëm gën leen a jox alal gën leen a teg fu kawe ndax lañ wax ne ñoom am nañ ko xam nga téere ba moom waxul woon ñoom dara alxuraan yi ngi ni fii ni waxul kenn dara ci ñii fi nekk nii ku fi wootewu diine it waxul loo xam ne wax joo xam ne yaa ko moom yow la ko jagleel di la bàkk déedéet yaa ngi ñëpp a ci am taalaw ila kalima sawaa'in baynanaa wa baynakum léegi nag comme da bëgg nag loo jagoo loo xam ne dana tax nit ñi jox la cër bu bokkul ak ñeneen ñi kon faw nga indi loo xam ne man yàlla lii la wax ci man waaw lii la wax ci man te loola yaa ko bind ba noppi nag ne min indillah ci yàlla la jóge mu ne fa waylun lahum mimma katabat aydihim ñooñu day toskare ñeel na leen mbugal ñeel na leen ci loolu nga xam ne moom lañuy bind wa waylun lahum bind loolu ñuy bind ak seeni loxo ba noppi di ko askane la yàlla wa waylun lahum mimma yaksibun ñoom day mbugal ñeel na leen ci loolu nga xam ne moom lañuy ñuy fàggu ci alal ju araam ci turu diine ñu di leen ko jox te lépp nekk lu xaraam yàkkuloon am waala naas am waala naas bil baatil ci neen la ñu wax bay lekk alali nit ñi moo tax dañ leen mbugal ñaari yoon ci li ñu bind sos ko ne yàlla leen ko waxal te waxu leen ko dañ leen mbugal itam ci lañu ca amee ci alal ju leen nit ñi jox ak fu leen nit ñi teg moo tax kon gis nga ñaari waylun la tudd fii fa waylul lahum mimma katabat aydihim waaye wa waylul lahum mimma yaksibun kon duma yu metti lañuy am ndax nit ci turu diine ku ko def yaa ngi def lu rëy ndax day wéy ka ca nax bam ne ca yar ca njabootam bu ca jógee njaboot ga dañ cay continuer ñoom itam ñooñu bu ñu jógee ñeneen continuer ca ndax dañuy wax ne bëgguñoo ju yoog suñuy baay ak suñuy maam ci li nekkoon te kon lu garaaw la moo tax borom bi ne ku ko def moom dangay def ñetti biir illa lasina taabu wa aslahu wa bayyanu koo xam da nëbbu la yàlla wax ba sànq ci ay nit tuub rek doyut yeneen bàkkaar ci des yëpp boo tuubee rek ñu jégg la waaye bii moom taabu wa aslahu nga yàq li nga defaroon nga defar li nga yàqoon nga defar li nga yàqoon wa aslahu waaye wa bayyanu nga leeral li nga lëndëmaloon li nga la demaloon ku masaa wax diine ju wér nga ne kooku lim wax du noonu ba la waaye la nga la lépp na nga ko leeral la nga yàqoon na ko defar borom bi dog la jéggal waqaalu ñoom dañuy wax ñoom banu israil yi ne lan tamassana naaru illa ayyaaman ñu ñun safara duñu lakk àllaaxira lu dul boog fan yu néew bu ñu demoon bañ ñuy lakkit fan yu néew a néew a néew lañ ñuy lakk nee nañ mooy fan yañ doon jaamu seen yëkk woowee ñu defaroon ay jël boobee ñu defaroon di ko jaamu ñu ne yàlla bu leen di mbugalit lu tolloog fan yooyu te loola yàggut xul nee leen attaxastum inda allahi aadan ndax da a am ak kóllëre gu leen yàlla dig ci ne du leen lakk lu dul fan yu néew ndax yàlla da leen cee wax dara ci loolu fa lañ yuxalifa allaahu aada te yàlla moom du wuutal ab diggam su fekkee yàllaa leen ko wax yàlla moom lu mu wax da koy def wa man awfa bi aadihi min allah waaye nag ana ana dig ba fan la leen ko yàlla wax am taquluuna ala allahi ma la taalamuun wala boog yàlla waxu leen ci dara waaye yéenay wax ci yàlla yéen lu ngeen xamut ngir bëgg naxe ay nit balaa axa kay li am daal te am mooy man kasaba sayyi'a koo xam ne faggu na jëf na jëf ju ñaaw ku mën a doon nag man rekk ku mën a doon ku jëf-jëf ju ñaaw ak fu mën a bokk wa axaatat yi xati'atu ay ñaawteefam wër ko ndom ba daj kapp fépp di ay ñaawteef ci moom fa ulaayika ñooñee asxaabu naar waa sawara la ñuy doon aajuwul famille bu ñu bokk wala lu ñu xam waaye daal ko def ñaawteef daal tuuboo ko nuur ci ay bakkaar ba bakkaar yi wër la ci wet gu nekk sa lépp day bakkaar rawatina nag bakkaar yoo xam ne yaa ngi ko jëmee ci say moroomi jaam yooyu tooñ di dunde seeni aq xañ leen seeni aq nee na ñooñ ñooy waa sawara te hum fiha xaalidoon dañ fay sax dàkk dañ fay béel euh, bu ñu fa duggee du ñu génn kon atteb suñu borom boobu moom sax na ci ne daal képp ku def ay bakkaar ba bakkaaree dem ba yóbbu ko ci kéefër ay bak bak ay bakkaaram wër ko ba jekk ko ci wet yépp te mooy ko bokkaale ak suñu borom tabaraka wa taala ak ñi nga xam ne dañuy wedd yàlla ñooñu day dañuy taqoo safara bu ëllëgee te dañ fay sax dàkk mbugal moo xam ne du dagg wa is axas naa misaaxa bani israil na nga fàttali ci téere bi ba ma jëlee kóllëreg banu israil kóllëreg mooy lan laa taabuduuna illa allah loolu lañ leen digaloon kóllëre gu feddaliku la suñu borom jël ñoom mooy miisaaq ci ñu jaamu yàlla moom rekk wéetal ko duñ ko bokkaale ak dara wa bil ni ihsaana ak nag ñu rafetal jëme ci seeni wayjur jëme ci seeni jegeñaale jëme ci jirim yi wasil qurba wal yataama wal masaakin yooyu yàlla dénkoon na leen ko digal leen ko ndigal lu dëgër gannaaw bu ngeen wéetalee suñu borom tabaaraka wa taala bañ ko bokkale dara nangeen rafetal jëme ci seeni wayjur ak seeni jege ñaale ci bokk ak ñi nga xam ne ay jirim lañu mooy koo xam ne ay wayjuram dañoo génn àdduna te nekkagul mu kàllaf ak koo xam ne miskin la ku ñàkk la ku aajo woo la la muy am ma ngay góorgóorlu la mën a am ma ngi koy wut waaye loola mënu koo doy mënta faj aajoom ñooñu di leen rafetal jëme ci ñoom kon ba ci même boo leen dee dimbali di leen jox joxeen wan a rafet ndax rafetal baatu ba rafetal rek la wax rafetal lépp a ngi ci biir joxe ngi ci biir waaye rafetal itam joxin wa waaw ndax mën ngaa dimbali nit waaye façon dimbaliin wa nekk ak doye dal nekk ak ñaawal wate boo laa tubtilo sadaqaatikum bil manni wal aza bu leen yàq seeni sarax li di jox nit ñi ci almann wal aza mooy di leen ñax di leen wan ne maa leen ko defal wala nga di leen ca teg lor wa qulu linnaasi na te nag ngeen di wax nit ñi gën gaa teeyi wax wax ju rafet boo koy wax ngay seet na mu gën a rafete rek natt ko ci sa bopp loo xam ne buñ la ko waxoon mu naqari la xamal ne kii nga koy waxit daf koy naqari ndax yéen a bokk nekk nit yéen a bokk yëg-yëg moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tënkoon ko rek ci laa yuminu ahadukum ataa yuhibba maa yuhibbu li nafsi sa ngëm daal balaa mat dangay ngay bëggal euh, sa mbokk li nga bëggal sa bopp bu ne kii maa xamul lu mu bëgg wala lu mu bañ xamale li nga bëgg la bëgg li nga bañ la bañ rek ndax yéen bokk nekk nit wa aqimu salaa wa aatu zaka bokk na ci kóllëre googa itam lañ leen digaloon mooy dee leen taxawal julli di joxe azaka waaye nag nee na ànd ak loolu lépp su ma tawallaytum nee na ñu dëddu wane gannaaw du mooyu loolu yàlla digle illa xalilan minkum lu mooy lu néew ci yéen ñoo ca des waaye ñu ca baree baree bari dañoo wan gannaaw loolu wa antum te yéen muridun yéen a ngi wéy ci seen dumóoyu googu wan googu ñu won gannaaw ndigale suñu borom tabaraka wa yi dañ caa sax wéy ca loolu itam na nga ko fàttali parce que muy wax ci téere bi yëpp wax ne ñooñu dañ cee jaaroon banu Israil ngir rek jullit ñi bañ cee jaar boo ba tax na fi mu ne yu baree baree bari ci ndëngte yu am ci diine boo ko seetee fii lañ ko jëlee ci ñii ñu njëkk a jaar yahudi ak nasaraan yi ci ñoom lañ ko jaar wala takunu kallasina utul kitaaba min qablu gis nga borom def bu leen mel ne ñooñu fataala alayhimul amadu ba mu yàggee tuuti rek fa xasat xulubuhum seen xol ya wow loolu dal nañu baree baree baree bari ci jullit ñi melokaan yu bari yooyu gis ci diine ñu koy tuddee diine te du diine ci ñoom ñii lañ ko copier mooy li yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne da ngeen leen topp di leen roy di leen roy ba suñu duggoon ci paxum mbëtt sax ngeen dugg ca ñu ne ko ñooñu mooy ñoo ci jublu ndax banu israil wala ahlu kitaab yi nga ci jublu mu ne budul ñooñu kan lay doon kon nag jullit dafay war a tënku ci ab téeréem ci alquran fastamsik billasi uuxiya ilayka innaka ala siratin mustaqim mooy ci yamal bul jàdd fenn looy def rek bul toppandoo bul roy waaye tënkul képp ci alquranul karim nee na boo ci tënkookat na nga xam ne yaa ngi tegu ci yoon wu jub bi Ramadan weeru koor ñëwaat na Ramadan weeru koor yegsi na Ramadan weeru koor ñëwaat na